mooy maanaam l'électorat euh, kii tamit ak euh, kii tamit euh, ancien maire de Dakar mm-hmm. tamit moom tamit ñu Khalifa Sall ñu jox amnistie aussi suñ leen amnistie forcément ñoom tamit ñu dem ci li nga xam ne ni moo di élection yi mm-hmm. te bu ñu demee ci ay élection dinañu am ñu bëri ñoo xam ne dañ leen di topp donc du doon benn configuration boo xam ne ne ñaari kii la parti yoo xam ne ne wala ñaari kii ñooy daje mm-hmm. mais non dañoo bëgg yaatal géew gi pour gën a fekk mu ngi gën a yaatu fekk nag tamit li nga xam ne mooy élection yi day gën a lëndëm parce que ñu ci ko ci nekk da nga am benn part boo xam ne moom ngay féetewale part boobu ngay féetewale nag léegi loolu mooy tax nag dina xaaw a métti defe naa ne que ça bien calculé tout simplement il faudrait que ñoom ñu bëri sur la ligne pour que loolu nga xam ne ne léegi su résultat yi jot jotee di mhm. nga gis ne que du am lu ñuy wax ni que majorité écrasante mhm. dina am peut-être majorité bu ndaw mais pas une majorité écrasante parce que tout simplement dañoo amnistier à personne yoo xam ne ni mhm. ils sont valables te et puis elles sont valables et puis surtout ñoom loolu lañ doon xaar pour ñu mm-hmm. am les séeréer ñoom tamit ñu mën a dugg ci langue politique bi mm-hmm. def seen i manoore très bien mi ngoog Léopold ñu wax leneen soxal xibaar yi ak financement infrastructure lu am solo la waaye nag pour mu mën a nekk faw rek ñu bàyyi xel ne fow mu dëppoog ak processus développement yeneen ci ay nation yi nga xam ne ñu ngi aspiré doon nag nation wu yokkute muy émergence wu ci mel ni Sénégal waaye nag ngir loole mu mën a ñoŋ occupé planification bu baax a baax waaye xam yan infrastructure la ñuy financé euh, te mu doon priorité nga xam ne buñ ci tàbbee rek dina mën a am rentabilité euh, boobu nag euh, kon mooy njàngatuk économiste bi di Pape Abdoulaye Seck xelam màcc jëm ci wàllu koom ñu teewlu koog na nga ko bakkee ko financement grand projet yi surtout dafa am solo ci doxinu réew dafa am solo ci màgg réew dafa am solo ci évolution réew loolu yëpp euh, pour solo si gën a mën a feeñ day fekk ñu coordonné ko ñu boole ko mu nekk loo xam te ni dañ koy tànn parce que nag dañuy toll foo xam te ni réew dafay dox ci doxin wi donc euh, financement yi dafa war a ànd ak doxin wi màggaay ga toll financement yi tolloon maanaam yi teewoo ci infrastructure ñu mën ko am parce que buñ ko planifié day nekk loo xam daanaka ñoo giñ te du tee bor ba nga ca leboon yaa ngi koy fay du tee intérêt nga fay projet yi dañoo war a xool priorité yi maanaam fi askan wi toll li ñuy soxla ci infrastructure boo xam day yokk économie bi day dolli yokk différents secteurs yi nga xam ñoo yor économie bi bu ko defee mu am jeexital ci nit ki jeexital ci économie bi ci création de des ci ay emploi planification bi nañ ko jiital tànn bi nañ ko jiital te tànn bi ñu teg ko ci fi ñu toll fañ jëm dox ci loolu financer loolu dañuy des ak euh, économie si ba léegi maa ci jëm ci wàllu koom moom Pape Abdoulaye Seck dikkaat na itam di euh, sàkku ci kilifa yu ngànk réew mi ci ñu xoolaat bu baax a baax euh, yenn saa yi yenn ci ay type de contrat yu ñuy négocier te léegi nag ci infrastructure yu nekk ci Afrique yëpp jéggi na sax Sénégal ca noonu Pape Abdoulaye Seck mi ngi wax jot na nag ñuy diversifier lu jëm ci partenaires yi bañ a yem rek ci même réew wala sax benn kuréel Euh, loole euh, day doon lu am solo lool te Sénégal mën na dem xëccu yeneen i partenaire ndax signature am baax na lool Papa Abdoulaye Seck ñu wéy di ko teewlu bokkuñu comme dañ la koy lebal la boo leb da xool bu baax ci condition yi ngay leb parce que ñun mënuñoo financer infrastructure yi suñuy budget tudd ko donc foog ñu dem lebi mais ci biir lebi boobu tam foog ñu xool nan la ñuy fexe ba ñi ci war a bokk ñëpp bu ñu man ko ba bu ëllëgee bu laajee maintenance wala yeneen liggéeyu ñàkk solo doo ko boo xam ne lu jaadu la waaye lépp rek condition bu ñu la wax nga jël tollatuñ foofu fi professionnel kenn ku ci ne da négocier li nga war a négocier ba lu bari ëllëg du ñu dal parce que fii Sénégal exemple yu bari am nañ ko fi am nañ fi contrat xam dañ ko mujj kaase ñu yóbbuñ ci ay tribunal ñu fay ci ay intérêt ay date parce que niñ ko négocier woon baaxul bu ñuy négocier daal nañu xool wax di li nga xam mooy njariñ li ak ni mu gën a woyofe te gën a baax ñu négocier noonu te bu boobaa mu doon lu leer lu transparent bu mi ngoog Léopold di kaar na ci financement infrastructure yi wax ne sax euh, pàcc bu am solo la ci euh, processus de développement ab réew waaye nag day laaj léeg-léeg planification bu baax ak surtout ñu xam priorité yi ak tam di investir ci yet ci ay infrastructures yu rentable il a tout à fait raison parce que euh, lu ñu tëb rek di def ay tabax yoo xam ne ni peut-être que à l'avenir duñ ko soxla parce que lu ci am solo mooy nga mun a identifier li nga xam mooy soxla askan wi par exemple suñu nee par exemple terre bi tey jii am na benn euh, solo su baaxoo boo xam ne ne mu ngi koy amal ñi nga xam ne ne ñoo dëkk en banlieue ah. ak ñi dëkk dëkk Dakar aussi donc ça montre ne que déjà am na benn allègement parce que c'est des transports de masse ah. transport de masse yooyu tax na ñu bëri allégé léegi ñenn ñi seen oto dañ koy bàyyi dakaar ah, ah jël terre bi pour ñëw seen kër après bu ñu yeewaatee noonu lay def donc dina am ay infrastructure yoo xam ne dañ koy defar mais ces infrastructures là dañoo am impact sur l'économie sénégalaise mhm. loolu moo ci am importance mais nag suñu jëlee di tabax ay stade yoo xam ne ni peut-être que amaluñu benn rentabilité di nga gis nekk foofu tamit dañ fay perte xaalis bu bëri mhm. donc dafa wax na dëgg il faudrait ñu mun a maanaam sekki yi nga xam ne ni ñooy ay infrastructure de base yoo xam ne dina am ngëneel pour réew mi ñu jël ko tabax ko su boobu kenn du wax dara mais jusqu'ici on peut dire que ça va ça tamit ñu réorienter les choses xoolaat euh, exactement lan la ñu mën a def tamit ci ñi nga xam ne ñoo nekk tamit ci àll bi parce que dañ leen di fàtte parce que on a cette tendance à vouloir dire ne lépp lu war a am dañ koy i Dakar alors que y a des gens yoo xam ne ni ñi ngi ci àll bi soxla nañ ko te mënal nañ ko defal hmm. waaye dañ leen ko defalul jël loolu yóbbee ko Dakar ci ay infrastructures yoo xam ne ni amul benn njariñ hmm. donc il a totalement raison sur cette question d'accord euh, a ba ñu tegee xeer wu njëkk soxol liggéeyu tabaxuk euh, centrale à gaz West African Energy euh, nga xam ne euh, ñu ci téeméer boo jël ñeent fukki ci defar gi ñu implanté kon ca Cap des nekk ca Rufisque centrale bi ni capacité production bu ñetti téeméer mégawatt la am te li koy doxal du leen lu dul gaz yi ñuy jëfandikoo te ñu di ko fere fii ci réew du Sénégal ginnaaw nag ba mu teewee ci sommet jëm ci wàllug financement infrastructure en Afrique njiitu Ah, dem na kon ah, dem xooli ji bërëb ah, boobee ak liggéey ba fa mu toll mu mel ni kon satisfaction total la ca am ci yooyu rek travaux dañu ci ànd ak Cheikh Ahmed Tidiane bu APRI Exim Bank bëril gannaaw ba mu demee nemmeeku liggéey centrale West African Energy kontaan na lool ci euh, projet bi ñëw na ci site bi gis na ni projet bi avancé euh, projet bi dafa bokk stage gouvernement bi projet bi bu bu paree dina tax gaz bi nga xam ne am nañ ko Sénégal avant ñu waa bitim réew di ko jëfandikoo waa Sénégal nañ ko mën a jëfandikoo dina projet bi également dina permettre Sénégal seen ñu am énergie bu gën a bari bu bu xam ne également day gën a moins cher. centrale ak gaz bi xam ni capacité production dem na ba weesu ñetti téeméeri mégawatt moom ñu ngi ko daaj ba fële ca Cap des Biches mu nekk nag avantage yu rëy ci fii su suñu réew ak sax su région bi. gaz lay dawee fii ki at dina mën a génn boo defee ñu anticiper mën a tabax ay centrales yoo xam bu gaz boobu dikkee dina mën ko jëfandikoo. plan pour que prix courant bi liñ koy defaree courant bi bi mën a wàññeeku li ci topp mooy environnement bi tamit. dina tax machines yi utiliser environnement bi dina gën a propre nga xam ne environnement bi li émission yi dina gën a wàññeeku cig fàttali tegub xeer bu njëkk bu centrale ak gaz boobu ñu ngi ko amaloon fanweeri fan ak becc weeru mars ci atum 2022 Ibrahima Tidiane Seck jërëjëf akuk dal la ñu daal di nemmeeku euh, ci espace scolaire bi ginnaaw ba nu xaatime accord yu ci février atum deux mille vingt deux mu mel ni kon cadre unitaire syndical enseignant moyen secondaire ñu gën leen xam ci CUSAMS ñoom nag ñu ngi sàkku leneen mooy ñu daal di satisfaire ci daar gi lu euh, jëm seenu ko càkkuteef jëm ci wàllu formation enseignant yi ak décisionnaire yi loole nag buñ ci tàbbiwul amaana euh, lu jëm ci wàllu tekkareel gi ñu nemmeeku ci njàng be njàngale mi euh, dinañ ci génn ndax daañu waat ci seleng maanaam geraw gu tar dañu ci teewlu Ndongo Sarr euh, moom moo àddu wax ci seen euh, kàddu yi micro Younousa Baldé aujourd'hui bari na ay problèmes yoo xam ni mi ngi ci table yi yoo xam ni il faut que gouvernement bi régler que su dee bëgg na jàmm am moom mooy problème mu décisionnaire am na benn décret boo xam ni ñoo ngi xaar ñu signé ko mais am fi problème bu tar boo xam ni mooy problème mu formation dafa am bari ay jàngalekat yoo xam ni ni ñu dugg ci système bi